فجاءني بما به فجانا باقي المميت والبقاء جانا فجاءني بما به yaa

كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم يطاع عليه سلاماه بجميع مقتفيه فإنها وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خير تعالى يصرف إلى غيركم ضيره إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبى فيه الاجتماع بجاهد الغزوات المؤذية آله وصحبه ذوي الأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل di leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel di leen jéggulu tooñ gu fés ak gu fésul gun yëg ak gun yëgul te ci jiital kilifa gu tedd gi ci bis bu tedd bii xaasa ak ci fukki fan yu tedd yii amma nga xam ne des ci ful yoolub jëf laa qadarallah ñu ci fulit mbogalum ab safaan bu àndul ak njéggal amul nag jënn jëf ju baax ju jaam mën a jëf ak lu mu rëy rëy te yàlla farataal ko ci moom man ca amee lu toll ne li ku tabaski mën a amee ci tabaski ci tuyaaba ak doonte ne dafa tabaski tabaski ma gën a suufe daraja si lu mën a tabaski te muy la jàppuli ca moom ka ca des jëf ja gën a ci lu baax lu jaam mën a coobare jëf ko ki jëf-jëf ju rëy ju baax ji bu tabaski ne moom nag daal di koy gañee loolu min baabi dalika fadlullahi yutihi man yasha wa min baab tafdiluhu taala baad annaasi ala baad ñim tànn ci nit ñi di yonente yi sax yamalewu leen tilka rusulu faddalna baadahum ala baad waliyu yi yamalewu leen malaaka yi yamalewu leen moom faalu lima yurid yafalu ma yasha wa huwa ala kulli shay'in qadir kon ku mën a tabaski ak tabaskiyam ci bis bi dara mun ko wecc ma amila aadamiyun min amali yowma nahri ahaba ila min ihraqi dam lim koy mane ci xar nag mooy mu am at bu jàppandiwul mu am fukki weer mu am juróom-ñetti weer bu eggul foofu lu néew néew mu am juróom-benn weer bu dee ci bëy mooy mu dugg ci ñaareelu at nag bu dugg ñetteelu at bu diggee ñeenteel gënati gëléem bu dugg juróomeelu at bu diggee juróom benneel gënati lu mu ci man di doon it bu mu am jenn ayib ju fés ju bokk ca ñeent ayib ya ca hadiisu albara ubnu aasib bu mu am it ayib ju yem jenn ci ñoom te fés ayib ju yées jenn ci ñoom wax nopp ñeent ya ñooy soox pat wàpp jeex tàkk bu muccee ci ayib yépp nag ju fees ak ju feesul muxtaar mangoogu bu ca boolee ami béjjën jaxase weex ak ñuul te ñuul ñuul ya bañ a génn lëdër la bët ya la war ga biir ba tànk ya daldi nekk tànneefu tànneef niki mu dikke ci xadiisu sayida aysa ba radiyallahu anha te andiloo ko paaka bu mag daasloo ko ko ciw doj te ca mujj mu ñaan yàlla nangul ko mook njabootam te ñooy mbokkam yë ko gënoon a jege te àndoon nag moom diineem te gën ko caa jàppale ñaan mu nangul it xeetam wépp an urwata bni zubayr an aishata anna nabiya sallallahu alayhi wa أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبلك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المذية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صحيح مسلم mu war nag képp ku ko man tey as gor jullit moo xam mag la wala ndaw góor la wala jigéen ku nekk fi mu dëkk la walla ku nekk ci tukki te du aj fii ba sawaal di jot ci la def gi gënee ku mu ci moom fii ba jant bi so gannaaw ëllëg fu ko fi defee te du guddi mu baax def gi it lu gën a jege yor yooru tey bii ci lay génn bam des ëllëg ci gannaaw jotuk tisbaar yor yooru gannaaw ëllëg lañ gën a taamu ci moom lii lan tënkoon kon ci bis bi dundal ci sunnas ku tedd ki sallallahu alayhi wa alihi ni ko boroomi xam-xam waxe ñu ne dara fàttali lu aju ci tabaski mi bu dee ci bis bii bu dee ci korite mu fàttali lu aju ci muurum koor moo xam fàtte am na wala amul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu amee lu cay topp soog caa topp yàlla nanu yàlla nangul gii ak yi ko jëkk ak jaamu yàlla yépp rek te yàggal fi suñ kilifa gii nu yàgg ci gannaawam te may nu wér ñun ñépp léegi ñu jox kàddu kilifa gi al imaam te diglu ko di leen siyaare di leen ndokkeel di leen jéggulu tooñ gu fés ak gu fésul gun yëg ak gun yëgul te ci jiital kilifa gu tedd gi ci bis bu tedd bii xaasa ak ci fukki fan yu tedd yi amma nga xam ne des ci ful yoolub jëf laa qadarallah ñu ci fulit mbogalum ab safar bu àndul ak njéggal amul nag jënn jëf ju baax ju jaam mën a jëf ak lu mu réy réy te yàlla farataalu ko ci moom man caa amee lu toll li ku tabaski mën a amee ci tabaski ci tuyaab ak doonte ne dafa tabaski tabaski ma gën a suufe daraja si luñ mën a tabaski te muy la jàppali ca moom ka ca des jëf ja gën a ci lu baax lu jaam mën a coobare jëf ko ki jëf-jëf juré ju baax ji bu tëbëskee ne moom nag daal di koy gañee loolu min baabi dalika fadlullahi yutihi man yasha wa min baab tafdiluhu taala baad annaasi ala baad ñim tànn ci nit ñi di yonente sax yamalewu leen tilka rusulu faddalna baadahum ala baad wali yi yamalewu leen moom faalun lima yurid yafalu ma yasha wa huwa ala kulli cheyin qadir kon ku mën a tabaski ak tabaskiyam ci bis bi dara mun ko wecc ma amila aadamiyun min amali yowma annahri ahaba ila allahi min ihraqi dam lim koy mane ci xar mooy mu am at bu jàppandiwul mu am fukki weer mu am juróom-ñetti weer bu eggul foofu lu néew néew mu am juróom-benn weer bu dee ci bëy mooy mu dugg ci ñaareelu at nag bu dugg ñetteelu at bu diggee ñeenteel gënati gëléem bu dugg juróomeelu at bu diggee juróom-benneel gënati lu mu ci man di doon it bu mu am jenn ayib ju fés ju bokk ca ñeent ayib ya ca hadiisu albara ibnu aasib bu mu amit ayib ju yem jenn ci ñoom te fés ayib ju yées jenn ci ñoom wax nopp ñeent ya ñooy soox pat wopp jeex tàkk bu muccee ci ayib yépp nag ju fés ak ju fésul muxtaar mangoogu bu ca boolee ami béjjën jaxase weex ak ñuul te ñuul ñuul ya bañ a génn lëdër la bët ya la war ga biir ba tànk ya daldi nekk tànneefu tànneef niki mu dikkee ci xadiisu sayida aysa ba radiyallahu anha te mu andiloo ko paaka bu mag daasloo ko ko ciw doj te ca mujj mu ñaan yàlla nangul ko mook njabootam te ñooy mbokkam yë ko gënoon a jege te àndoon ak moom diineem te gën ko caa jàppale ñaan mu nangul it xeetam wépp an urwata bni zubayr an aishata أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبلك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش fa adjaahu summa dabahahu summa qaal bismillah allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wa min ummati muhammad summa daxa bi saxiixu muslim mu war nag képp ku ko man tey as gor di moo xam mag la wala ndaw góor la wala jigéen ku nekk fi mu dëkk la wala ku nekk ci tukki te du aj fii ba sawaal di jot ci la def gi gënee kum jàppandul ci moom fii ba jant bi so gannaaw ëllëg fu ko fi defee te du guddi mu baax def gi it lu gën a jege yor yooru tey bii ci lay génn ba des ëllëg ci gannaaw jotuk tisbaar yoor yooru gannaaw ëllëg lañ gën a taamu ci moom lii lan tënkoon kon ci bis bi dundal ci sunnas ku tedd ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ko boroom yi xam-xam waxe ñu ne dara fàttali lu aju ci tabaski mi bu dee ci bis bii bu dee ci korite mu fàttali lu aju ci muurum koor moo xam fàtte am na wala amul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amee lu cay topp soog caa topp yàlla nanu yàlla nangul gii ak yi ko jëkk ak jaamu yàlla yépp rekk te yàggal fi suñ kilifa gii nu yàgg ci gannaawam te may nu wér ñun ñépp léegi ñu jox kàddu kilifa gi al imaam te diglu ko mbokk yi ñu ngi ziare bu baax di nuyu ñëpp ni ngi ko baaxoo daa defe rek mooy fàttali ñu ko daa waxee rek ñu góorgóorlu bu baax ci waxtu wu ne ñu gën a fonk suñu diine waxtu wu ne ñu gën a fonk suñu taalibe fonk diine gi moom mooy fonk digal bàyyi tere fonk taalibe gi itam mooy waajal jëf ji di yéene bu baax te yàlla rekk tax di jëf lu baax di wax lu baax jëf lu baax te yàlla rekk tax ci te sax ca dàkk ñu gën a bu baax lañ see dolli rek moo di mu gën a delloo ci xel yi bu baax ci tawféex juri yi nga xam ne am nañu ko mooy boole gi sunu boroom boole sëriñ bi ñu gën a dellu si xel yi bu baax xel xëy na xel yi jógu ci sax waaye tawféex jure ji na am ak def gi suñu borom def ci suñuy xol nu bëgg sëriñ bi nu bëgg sëriñ bi nun ñëpp góor ak jigéen maa nga ndaw nu ñëpp ci yem nu ñëpp ko bëgg ci biir loolu kon war nañu sàmmanteeg wormaam waxtu wu nekk waxtu wu nekk war nañu sàmmanteeg wormaam ñun ñépp nag amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw kenn du ko ne fa nga ca toll boo te boo nattee sa bëgg ci sëriñ bi dara waru caa dolli ku lu dul or na sa digganteek moom or na sa digganteek moom nga rus jëf lenn lu dul safaan nga rus ci sëriñ bi xormaal ko xormaal barab bii mu nekk muy dëkk bi muy Tuubaa xorma ji nun ñëpp la war amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw kenn ku ne fa ca toll mën ngaa jëfe foofa dëkk bi kenn ku ne ci noonu war naa am kersa ci sëriñ bi war naa ruus sëriñ bi ci nekk fi dafi nekk dafi nekkeb sabaan ku fi nekk war ngaa xam li nga am tawfeex ji nga am sëriñ bi ba bokk ci ñooñam amaat tawfeex dëkk ak moom fii war ngaa xam nag kon li nga am sa digg ak sëriñ bi xam ne ormal ko war na la waaye ormal dëkk bi bi fi ci barab bi mu nekk war na la la ca dam ta tàmbale ca gone gu ndaw ga lu doon doon gone gone lu mu doon lu mu doon doon gone du jàkk lu mu xam lu jeexital ci moom ci baaxu sëriñ bi loola mu tàmbali caa rus sëriñ bi tàmbali caa am kersa di góorgóorlu bu baax lépp lu mu xam ne ab safaan la mu di ko wattandiku ko di ko wattandikoo def ci dëkk bi loolu ca tàmbale ca gone gu ndaw ga jëm ci ki xam ne eh, dëgg la gone yi ñooy yaakaari ëllëg kon lu ñu doon doon di gone it war nañoo bàyyi xel ci xam ne ñooy yaakaari ëllëg yi te xam ne lu baax rek lañu bëgg ci ñoom ñu xam ne am nañ xéewal bu rëy judd fii fi sëriñ bi kon war nañoo teel def seen xel ci ormal ko ormal barab bi ci bañ wattale ko fi di fi jëf benn safaan loolu muy gone gi muy ndaw li rawatina ndaw li ñi nga xam ne ñooy ndaw yi loolu moo war a nekk ci ñoom worma wormaal sëriñ bi wormaal dëkk bi ndaw ñi rawatina ñoom ñoo yaakaar yi war nañoo xam la seen wartif xam ne buñ dee wax sàmm worma dëkk bi sàmm wormee sëriñ bi sàmm wormee dëkk bi dafa mel ne kon ñoo ci jiitu muy ndaw yi ñoom bu ñu xamoon dañuy jàpp ne dañuy xam ne ñoo war a doon ñiy wattu dëkk bi ñi koy wattu sëriñ bi gannaaw bu ñu góorgóorlu seen bopp ba noppi ci bëgg sëriñ bi gi ñu war a bëgg ak pësté ba ñu war a am ci sëriñ bi ak war ma war ma war ma jëleen ci war ndaw ñi dañoo war a jàpp ñoom dañoo war a jàpp ne ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy sawatu dëkk bi ñoo koy wattu sëriñ bi gannaaw bu ñu ci seen bopp ba noppi ci kaw jéem a góorgóorlu tegu ci yoonu jub njub mooy buntu lépp lu baax njub mooy jiitu lépp bu jub amee lépp lu baax yomb xam ngi yomb jëfe gi yomb bu njub amul lépp tëju kon ndaw yi ñi war nañoo góor góorgóorlu bu baax xam seen bopp góor góorlu bu baax xam ne li ñu bëgg ci seen bopp njub rekk leen koy may ca dolli ko mooy gën a góorgóorlu bu baax te seen diine gën a góorgóorlu bu baax te seen taalibe li ñu bëgg seen bopp foofu la gën a yombe lu dul loolu dolli fitna rek la loolu mooy ndaw ñi ñi nga xam ne ñoo toll ñoo ca toll ñoom dañoo war a jàpp ne ñoo war a wattu dëkk bi ñoo war a ñoo war a ñoo dëkk bi sëriñ bi bu ñu xamoon loolu te def ko seen yitte day leen amal njëriñ lool seen dundu gi gii waxuma la gu àllaaxira gañ jëm nañu góor lu baax dellu seeni xel te xam ne dugg dëgg ma àdduna moom fitna juree rekk la amul benn njariñ kon góor góorgóorlu ci xam li nu am tawfeex jure ju nu am muy sëriñ bi wala du ko dëkkaat ak moom loolu war nañ koo xam bu baax te gën ci góorgóorlu ja xam ne loolu moo gën a gaaw ci may nu li nu bëgg waxuma la jëf ji nga xam ne suñ diggante ak suñu borom lañ ko séqal yàlla yomb jëflante lool boo yéenee te defoo dara sax mu fay mu fay la dencal la boo jëfee benn mu defal la ko fukk tàmbalee ko di ko wéy mën na ko yokk di wéy waxuma laa nag defaru biir ga nga xam ne mooy moom lay àndal defaru biir ga mooy àndal day day indi day day jeex day day day jeexital barke barke boo xam ne moo lay defaral sa sa mbir yépp lu ci dolli ku muy mag ñi kilifa yi xam naa ne ñu ngi ci sax waaye ñu gën a góorgóorlu ci njaboot gi ñu gën a góorgóorlu ci njaboot gi xëy na jamono di sax jamono tax na yombul waaye na góorgóorlu suñu kem kàttan góor góorgóorlu ci ci ci yar ci yar leen ci sunuy sunu suñu lépp suñu kem kàttan sunuy su su su sunuy làmmiñ sunuy jëf suñu digganteek ñoom suñu xamal rawatina nag jàngal taxaw leen baax njàng mi njàng moo nu gën a mën a noppal ci njaboot gi ñu góor góorlu ñu ngi ci sax waaye ñu góorgóorlu bu baax gën leen taxaw ci jàmm njàng mi buñ tolloo ci alxuraan ñu def ci yitte ju mat sëkk nii ko nii ko baaxee defee buñ bu bu buñ jógee ci loolu ñu góorgóorlu bu baax jàng xam-xam kon loolu moom. mooy suñu njariñ li nu bëgg loolu rekk noo ko mën a may lu dul loolu fitna rekk lay doon ma dellu si dëkk bi dellu si dëkk bi li nu ci war ñun yépp mooy xormaal sëriñ bi xormaal barab bi ci tolluwaay jamono dana di xalaat ne ñi dëkk ci dëkk bi bu ñu doyloo sëriñ bi nekk seenu liggéey ñi bay di bay ni sàmm di sàmm ni jaay di jaay te doyloo sëriñ bi loolu da leen gàttandu ci lépp lu ñu bëgg ci na gën a noppalee na mu gën a barkeele dana di wax dama di xalaat na dëkk bi ñaar rek ñaar rek ñaar ko séq ñi fi dëkk nañ doyloo sëriñ bi te fonk seenub liggéey yàlla dafa leen ci barke ñi fi ñëw dëkk bi tax leen a jóg bu leen dara tax a jóg na sëriñ bi tax a jóg ku fi ñëw na ku sëriñ bi tax a jóg saare ñaan mu amal na njariñ lool te du du ànd ak lu benn lor nga dellu ci sa liggéey kon ñaar ñooñu rekk ko séq nu góorgóorlu bu baax ci xam li nu am mooy dëkk bi ak boroom dëkk bi nekk bi fi nekk nan góorgóorlu bu baax sàmm dëkk bi na mu gën a selle ndax sell na ba noppi ndax ki fi nekk waaye nag nu nu sellal ko si suñuy xel sellal ko ci suñuy xol sell sellu ko sa borom buñ dee loolu moo tax sëriñ bi mën na noo góorgóorlu bu baax si sellalal ko dëkk bi dëkkam bi ndax sell rek la si bëggoon bi fi ñëw réer na ab diir ngir suuf barab boo xam ne dafay barab bu jaamu yàlla rek la loolu wut barab bu mën a mën a liggéeyal yont bi yàlla defal ko ko loolu mu fag fagguwaale ci njaboot gi yépp te lam ca faggu lam ca leen faggul jaboo na ci boroomam damay wax ne sëriñ bi fàgg lu mat a fàggu fàggul nanu ko lu mat a ñaan ñaan na ko boroomam te may na ko kon nu góorgóorlu bu baax ci xam li nu am te sàmm ko bu baax warmaal dëkk bi rek suñu kem kàttan mooy warmaal sëriñ bi loolu ñépp ko bokk gone am na ci wàll jigéen am na ci wàll góor am ci wàll ndaw am ci wàll mag am ci wàll ñun ñépp ñun ñépp bëgg nañ sëriñ bi la ca mooy kon nan xam nan gën a xam lanu ci war suñu digganteeg moom dara jiitu ci nag warmaal ko ci rus rus ko am kersa ci nekk fi nekk nekk fi tabaan nu góorgóorlu bu baax sunu kem kàttan te delloo si suñu xel ak suñu ittee ñu delloo ko nag ci njaboot gi góorgóor ci njaboot gi bu baax xam naa ni sax ñu ngi ci kem kàttan waaye ñu ko gën góor góor lu baax rek ci yar leen jàngal leen def ci ñoom yitte ñoom it ñu xam liñ leen bëggal lu gën a tuuti tuuti xel ma ko yàlla dénk mën na jaa xame lu baax lañ ko bëggal mu góorgóorlu ca ndaw li nga xam ne dafa tollu ci dugg àdduna kooku mu xam ne urtaxante wa daal loolu góorgóor tegu ci yoonu jub bu tegoo ci yoonu jub rek li mu bëgg ci lu baax lépp li ko war dana ko yomb li mu bëgg ci lu baax lépp dana ko yomb eh. mag yi gën noonu rek yokk yi tëj bu baax ci njaboot gi di doon lee sant nag bu baax xam nan doxin wi xam na ne itam seen kem kàttan yéen a nga ca taxawaayu diini ji fa tabaarakallaahu alhamdulilahi rabbil alamin taxawaay yépp itam gis nañ ko noo ngi sant yàlla deen ci sant bu baax deen gërëm bu baax di doon la ñaan rek sunu boom gën noo gàttu nag tawfeex sëriñ Tuubaa ba nun ñëpp nu gën a soññ suñ bopp ci nekk ci li sëriñ li sëriñ bëgg ci noonu noo ngi sant ñëpp bokk yëpp bokki taalibe bi yëpp ñoo ngi leen sant leen gërëm di xam di wax ne kàddu yi jumluñ ci dara lu dul lu nu bëggal suñu bopp rek dafa mel ni dañ leen ci jiital lu nu bëggal suñu bopp rek moom dañ leen bëggal la leen bëggal loolu rek moo war a wax ji kon nanu góorgóorlu bu baax gën a sàmmante suñu diine gën a gën a fonk suñu taalibe gën a yokk suñu itte la cay suñu kem kàttan jërë ngeen jëf noo ngi sant ñëpp gannaaw bu leen siyaaree suñu xol sedd na ci taxawaay yi suñu xel dal na rafet nañ jortu bu baax a baax itam jërë ngeen jëf sàlleen sa bi ñaan taabuli bila xanaatina